asalaamaaleykum suñu mbokk internet yi di leen nuyuwaat bu baax di leen ziar di leen bëggee ñuy suivre sur wasaare lamb wasaare TV kon niñ ko doon defee rek lañ koy defee à chaque fois nee naa leen lépp lu leen bëgg muy lu leen neex dañ ciy dox tey nag ah, wax dëgg yàlla ah, ñu seet si nag koo xamante ne du gan si ñun mu nekk koo xamante ne ñii ñii di seetaan miin ngeen kanamam miin ngeen waxam mu nekk koo xamante ni jeune promoteur kon nuñ koy waxee koo xamante ni dafay bëgg def lu kenn deful te mi ngi ci trace yooyu noonu. ndax la preuve en est instant bi wax dëgg yàlla bien vrai que ni coronavirus bi mi ngi fi mais moom dacee bay waaram ba pare yéen waat buzz bi ndax nee naa à chaque fois rek moom day indi loo xamante ni chaque jour xaw ma euh, moom moo bëgg kër créer buzz xaw ma nu mu demee noonu muy Prince ko mu nekk un promoteur boo xamante ni kenn ko présenté kenn am na ay combat yu mu fi tëggoon am na ay combat yoo xamante ni ba léegi sax waa am na ay combat yu mu fi tëgg am combat yu mu fi tëggoon ba pare nag li gën a dee mooy léegi Prince chanteur la wax dëgg yàlla man gars yi ñu ngi may woowee fu ne naan kii est-ce que prince la nu mu demee noonu mais loolu yëpp incha allah dañ ci waxtaan ak moom dañ koy bàyyi mu nuyoo après ñu continuer li nga xam ne moom mooy waxtaan bi ndax prince tamit ñëpp xam nañ ni euh, day sensibiliser porteur de voix la nañ ko bàyyi mu nuyoo wax tuuti ci coronavirus bi ñu tàbbi ci li nga xam te moom mooy waxtaan bi prince maa ngi lay nuyu. salaamaaleykum Fatima. maa lay nuyu di nuyu internet yi suivre wasaare di nuyu waa Sénégal yëpp di ñaan yàlla def si réew mi jàmm di nuyu suma yaay di nuyu suma pap di nuyu suma fami yëpp di ñaan yàlla defal ñu sutura defal ñu jàmm kilifa diine yi yàlla may leen wér ñu ngi koy maye njiitu réew mi may ko ensemble gouvernement am yàlla def daal si réew mi jàmm ñi nga xam ne ñoo ŋànk kàddu yi. ñi nga xam ne dañ leen yaakaar di leen xool yàlla may leen wér ba pare dëgëral seen baat teg leen ci yoonu dëgg ba lu ñuy wax rek mu doon luy àndax mu mustaqiim euh, kàddu gi am na solo mais euh, prince mhm. coronavirus bi gis nañu sax nga mais comme que xam nañu coronavirus bi instant bii nii yan kàddu nga ci am waaw de phénomène la bu ñëwa ah, dal ci àdduna bi àdduna bi yëpp Euh, sosoo fi ñuy wax Chine mm-hmm. ma amoon xarit nag bu fa nekk teel ma wax ma si wax ma si lu bëri ma communiqué si nag teel si communiqué même si maîtriser wu ko woon trop mais lenn daal xamoon naa ko te waxoon naa ko mooy que am na virus bu génn Chine te nu mu c'est dafa contagieux te dafa gaaw nu muy répandre mm-hmm. mooy septième corona mm-hmm. amoon na ay corona un deux trois quatre cinq six ba sept waxoon naa caractéristique yi nan la mel ak lépp ci sama page Facebook yi ñaar yëpp euh, PABC Cisco ak Cisco Presse euh, communiqué woon naa si waxoon naa ni que am na feebar bi ñëw et tout ça yëg naa ko mu ngi commencé génne Chine ki ko rey neen ko waa rey directement xam nga ndit moom kàddu sax dina ko rey di nga wax nit lu ñaaw sax mu rey ko du dëgg mais dañu amoon benn pression bu ñu tegoon si waa ji ba corona moo ko mujj rey en Chine loolu xamoon naa ko si waxoon naa ko. ba mais xam nga tam sénégalais moom lu dalul si kawam rek mun na ko bañ jàppee mun na ko jë bañ a jëlee au sérieux mais bon bay nañ si suñu waar daal góorgóorlu nañ si communiqué nañ si ba am nañ yaakaar ñu bëri tax nañ ñuy raxas seen loxo ñu bëri tax nañ ñuy jël antiseptique di ko utiliser. ñu bëri ñu ngi éviter distance ñu bëri ñu ngi éviter mbooloo dajaloo voilà ñuy sant yàlla nag ala kulli aali ak lu mën a am sant yàlla parce que yàlla lu mu teg nit rek mën na ko àttan na ko lu mu teg àdduna bi c'est parce que àdduna bi àttan na ko waaw Prince ñu xamale la ci promoteur bien vrai que sax wax dëgg yàlla am na loo def ci làmb Prince tey ñu gis la ci beneen facette lan moo waral loolu Prince mën nañu wax ne dafa surprendre ñu bari ñu gis ko studio muy dugal benn son pour coronavirus sensibiliser lu waral loolu ak lan moo la inspiré. xam nga yow defoon nañ émission yàggu mm-hmm. waxoon naa la presse góor la lépp du góor di def rek jàpp naa ni mun naa ko mm-hmm. waaw lépp lu góor yàlla di def rek man jàpp naa ni mun naa ko. Mm-hmm. mais ci kàddu way bi. waaw mais. ay góor yàlla ñooy woy sama maam di doon woy surtout suñ njuru laa sama deret la nekk loolu su ma ko wooyee damay wuy mm-hmm. su ma wooyee kooraa day ñëw surtout suñ njuru si soxo maa ko yaate mm-hmm. su wooyee mun war na woy war naa mën a woy mm-hmm. sama yaay séeréer la waaw jaxaaw Fatick la jóge surtout Pape Demba Diouf la surtout ma baaba Diouf la doomu Pape juuf bi génn àdduna ñu koy jooy moom la ay saltige lañ ñooñu maam ay descendance su saltige lañ moo tax seen dund signal la seen dee signal la donc man tey ma sumee ko bëree warul bett kenn parce que góor laa daal. <laughs> mais est-ce que euh, c'est facile. Hmm. tey affaire gis nañu da ngay bind xam nga affaire yi na yow presque. damay bind comme xam nga tey doo ñëw rek waaye. Hmm. il faut nga bind ko. man bindal naa fi artiste bu mag mu wëy lu rëy. Sénégal bi yëpp di ko coow te bu musul toog fen ne maa ko bind te maa ko bind A ba te son bu son bu cartonné la. waaw bu cartonné bu wër àdduna mu am si lu ne mais musul toog ne waa ji moo ma ko bind. ok man dama def rek joxe. ok mais musul toog wax ko. Mm-hmm. man nag su ma mënee bindal sam bopp waxal ko sam bopp nit yi dégg ko. Mm-hmm. heureusement que biñ ko déggee. retour bi doon na lu positif mënoon nañ ko dégg ne waa saa yi moom lu mu fi wax dara baaxu si. Mhm. heureusement. Mhm. heureusement bi mu nekkee si deret bi ba mu yomb ma. Mhm. artiste boobu ban artiste non non loolu moom. garaaw <laughs> mais euh, kii bi ñaata jour la am. mooy chanson bi ba nga koy kii. pour tourner ko waaw tourner ko. deux heures de temps. deux heures ah. lépp deux heures de temps la. bind beeg tourne dem studio beeg lépp ça m'a pris deux heures de temps. si veille bi laa si wax ak El Hadj Numukunda sama nijaay la sama cousin u pap la papam sama cousin wu maam la. Hmm. voilà moom suma ma mag la su xarit la père la tons la lépp la. Hmm. nit ku baax moom El moom laa waxanteel si veille bi. dama ko doon woo nii par hasard rek mu doon mu doon tourner je pense daara ji xaw ma kan la doon kiyal man ko mais loolu neex na de. Hmm. mais est-ce que duñ dóor mi ne mu presque doo ñëw ngir yàlla ñu dóor. lii sa dërët la dekk sooy ñëw muy dem. Mm-hmm. noonu si foo fàtte naa ko le lendemain nii rek ñu wootante 16 heures rek. Mm-hmm. man ko maa ngi ñëw si yoon bi laa ko bind. ci uh-huh. oto bi laa ko bindee. woo jax baxaaw mu am code yu ma si jox traduiral ma ñu dóor ko deux heures de temps yëfu góor. mu jeex waaw mu jeex après mu jeex. mu <laughs> jeexee rek jeex <laughs> mais doo doo ci ñam tuuti internet yi. non non duma ko ñamalaate leen ba bàyyi leen ba ma pa bàyyi leen ba may tëgg fenn ngeen. non non si non du question la ah voix am da kaa ah, ah, masterisé. waaw waxuma. <laughs> gars yi gars ne. bàyyi leen si dut bi du voix naturelle. da ko li ngay dégg nii ah, duróobu la. gars yi nañ ah da nga koo xaw ma mixé xaw ma ko ah. ah. occasion dina am da nga teg da ba ma dem sédiment ba naan na nii. xam corona xaw ma mais mais ñamal tuuti introductif. ba ma dem sédiment naan si nen bi bu baax. kon dëgg la du naturel dañoo teg machine ak yooyu. Ah, mais comme loolu la ñuy wax man damaa sonn si tontu beeg werante. mais mais làpp. ñuy làq ñuy làqatu fekk may studio wala nga fekk ma fi may tëgee léegi damay tëgg de prince bi bi jamono na sa kër mooy li jamono moytu mbooloo raxas loxo yi mooy li ndax feebar bi di corona mu ngi xeexa àdduna te moo ñu mën. bi jamono fankilinti bi jamono sinkilinti biwo bi mo be na fankulun fanku fanku duniya betene do ma nya konko beta mala bi jamono na ku ne toog sa kër mooy li neex na de ah. bi jamono moytu mbooloo raxas loxo yi mooy li ndax feebar bii di korona mi ngi xeex àdduna te mu ñu mën onoon bandiraaɓe imoɗen daroɗen so tawi korona virus mo ah. na ku ci nekk ku ci nekk na ko xam fagaro gan faaju onon bandiraɓe imoɗen daroɗen stay at home it's better restez chez vous mm. léegi doy na la wala ma dolli waaw xoolal ñu gis ni dañ cee woy olof bi français anglais ak euh, joola ah, ak xalpulaar pour ñim xamul li prince di wax xam fii nangam waaw ah, loolu mooy Sénégal xam nga Sénégal dafa am diversité de culture am diversité de rythme mhm. eh? donc ku si nekk la culture est si présent si Sénégalais yi ba nga xam ne on peut plus faire la distinction entre ce qui est culturel et ce qui est naturel mhm. en religion aussi c'est comme ça on peut plus faire, on peut pas faire la différence entre ce qui est culturel et ce qui est religieux mhm. dañuy dem ba am aada yoo xamante ne dafa raxet bañ koy jaawalax diine te du diine aada bu fi maam bàyyi la woon bokku tax dara sunna loolu la moo tax ñu laal fépp beneen bi mooy dégg nga jëw bi mooy lan gars yi ñi xaw a dinga sax ah. naan presse moom dafa sob ah. booy bi dafa waane ah. presse moom bu nit ñi xoolee fii mi ngi fii ba pare gars yi ne nañ yow ngay wooy coronavirus hmm. wooy ci du dóor président Macky Sall xam nga ay suñu maman ma Faye Sall ne gars yi ne da nga koo pour dóor quoi. mais dafa ko loo xamante ni mhm. sénégalais nan maalu. xam nga waxoon naa ne tànk que iñaan si soxor génn si xol yi lu ne mun na fee am. Mhm. xoolal suñu émission bu paase. Mhm. iñaan si sax soxor moo indi corona ak góor jigéen ak lesbienne. nit ki tànk yaa ngi dox si lu neex yàlla di julli respecte sa diine fonk say waajur. su yéene kenn lu bon yaa ngi si yoon bu baax. liggéey jaamu yàlla. si lii waalo si lay teral ay waajuram si lay yóbbu màkk si lay def lépp si lay ah tabax jàkk comprend nga dugal ciment si jàkk comprend nga nitu àdduna amul mm-hmm. Sénégal moom wax rek dans la vie y a des diseurs et des faiseurs fais tout yow man ak ku may déglu ku mu ku bëgg lu baax parce que lu baax la mm-hmm. nga fexe bokk ci faiseurs yi te bañ bokk ci diseurs yi mm-hmm. te diseurs yi moom du ñu jóg ci wax te bu yowee xiyaamee ñooy tardé seen bopp ndax seen seeni marxaba yépp lañuy joxe jël bàqaaru jàmbur yi mm-hmm. ñi ma tudd si wéy bi mm-hmm. dama ne Mitaala Kolda ah mm-hmm. mam booy be Kolda mam booy jaaw booy jaaw dafa def Kolda bi corona ak nit bu ñu ne prix balaa kenn di wax dafa def Kolda li mu fa war a def te boolewu ko coow boolewu ko télé deful photom si eh, antiseptique defu ko ci saaku ceeb coow amul mu def lu mu war a def mérité wul ku ko encouragé ah? uh-huh. ku def lu baax wax ko ayut de. Ah? Uh-huh. yàlla bëgg na lool dégg nga jëw bi kon. Hmm? kon dégg ma ne ku def lu baax. Uh-huh. nga wax ko dafa aay. ah non dëgg yàlla Eliman daa jël 10 millions joxe ko. ok Aziz daa jël 10 millions joxe ko ñoom nen joxe joxewuñu dara di wax. kon daal du dafa def lu bëri. Mm. Balla Gaye dama ko dégg muy sensibiliser. Mm-hmm. Tapha su deful suñ ko kañee dina ko defi xanaa ñooñu dañ may jox dara. ma Marème Faye mosuma kaa gis Macky mosuma kaa gis mosuñu maa jox cent franc man dew ma ministère pour ñu financer ma ma def clip ma dem fay studio ma génnee sow. kon yaa ngi financé kan moom ma koy jox. Oh, kon kan moo ma koy jox. koo jox na ko wax. ñun bàyyi yooyu Sénégal yooyu moo leen sonal dañuy topp di lijjanti di wax ay détails yoo xamante ne ça tient pas. Hmm. su ma neexee sax wéy ku ma neex. finition bi. Hmm. gars yi dafa woy ba ñëpp ne gong. ko hmm. dugal ci mbëri. waaw parce que mbëri ay ndit lañ. dugal ci ay ñoom ay buur lañ. xam nga. Pa Abdou Fall ak promoteur yëpp dañu Pa Abdou Fall ñun dañu am keesu promoteur déglu ma rek ma wax la Sénégal ba mu wër këpp promoteur yee njëkkee joxe lu ñu dundit mën a teg loxo. déliteur ka. Macky Sall président de la république sax président promoteur yee ko njëkkee joxe. ñun promoteur ñun association des promoteurs de lutte. Mm. avec FRAPP. Mm. jiite. ñëpp Pa Abdou Fall jiite ko ñëpp. authentique ak kii. no no ah yéen yéen de te on ah. parle de l'association des promoteurs bi nga xam ne. promoteur ah, waaw da ngay leeral ñaar moo fi benn moo fi nekk ñoom ñëpp dañuy ñëwaat bii moo jur yëpp c'est la c'est l'association bi bii mooy la maison mère. ñoom ñëpp dañuy ñëwaat. Hmm. nen nen rafetal rek ba ñëpp ñëwaat. Hmm. mais bii bu mag bi daal moo def loolu moo njëkk a joxe ci Sénégal. Hmm. te dafa bàyyi ba njabootu sport yëpp daje ministère premier jour yi. ñu siggil Matar Ba siggil Alioune Sarr siggil njabootu làmb yépp football a ngi foon basket ngi foon athlétisme ñun ñu jël si suñu kees jënd ay antiseptique soxna Ndeye Ndiaye jëndi ko fàllu fay ñëw jébal ko ministre bi joxe bon exemple ak Sadio Mané ah Sadio Mané waa Casamance c'est normal kenn moom il <laughs> euh, euh, ba ñu jógee ci li nga xam ne tey tey duñu toog ndax ñu bari. bul bul dem damaa ne après sëñ Muntaxa. xalif général des Mourides. moo njëkk joxe 200 millions la joxe. moom dama kaa wéy waxal. waaw sëñ Mbaye si Babacar. dafa joxe ay thermoflash. tëj daara yi. def mooyam. dimbale waa Tiwaawan taalibe yi ah parce que man daara yi rek laa ñoo ma ñor. taalibe yeeg ñooñu guney daara yi. ñooñu dañoo bokk ci réew mi. leen jàppale ñooñu bu baax. am na ñeneen ñu ma si mënoon tudd. mel ni Badara Kebe chaque jour day joxe añ quatre cent taalibe. quatre cent taalibe añ ak reer chaque jour depuis ko corona am. non kon du ay dóora ah, ndax li mu fi man presque convaincre na ma de ndax gars naan da koo. je sais pas de convaincre les li ngay def na nga ko def te yàlla tax. Mhm. nit nit ki sax ki ngay sékkal di ko jox su yaakaaree ne que li nga koy jox. Euh, si yow la jógee rek mu fonk mu gërëm la si yow topp la yàlla bàyyi ko yow te doo ko continuer. Mhm. looy def def ko te suñu boroom tax. man lu may dund suma àdduna yëpp. Mhm. xooluma si ndit nit mënuma war mu saf ma. nit mënumaa def lu ma naqari mu saf ma ndax lépp suñu borom laa siy xool. yàlla ngi fépp. laa ngi fépp da ngay continuer ba léegi léegi instant bi comme que yow da polyvalent. promoteur nga yaa ngi ci musique bi est-ce que ñi mën nañoo xaar euh, Prince ak ci yeneen ah ndax Prince instant bi mënatul surprendre kenn. wax naa naa la góor laa rek góor moom moom tànk góor ji lépp lu jëm si mbirum góor jigéen moom ak lesbienne yooyu moom yu bon yooyu nga xam ne moo indi balaa yi. <laughs> yooyu moom bokk ma si. Uh-huh. mais lépp lu neex yàlla incha allah maa ngi si mun naa kaa def. Uh-huh. mais depuis après ba mu kiiwee nii. Euh, recevoir nga ay félicitations yu bari yoo xam te ne jóge ci état bi wala. non non jotuma si dara. léegi ça bon moi je suis un citoyen j'ai participé. Mm-hmm. comprendre nga si benn lut bu amoon pour xeex feebar bi di corona. Mm-hmm. sant yàlla. am nga ci xaalis. ban xaalis utuma si xaalis. mais nag ab xaalis laa si am. Ah, ñoom maa booy jaaw gaa yooyu génne sax joxe. non non kenn joxewu. non presque non li ma la. Mame Boye gisee nañ après son bi on n'a même pas parlé de ça. Hmm. gisee euh, joxewuñu ma kenn jox ma dara utuma si xaalis. li si am am naa si sama mbégte pap sam pap dafa kontaan. <laughs> sam pap kontaan na si trop. Hmm. ak sam bàjjen Mariama booba Angleterre. Hmm. kooku moom ma ngénte ñooñu kontaan nañ si. comprendre nga loolu rek parce que tey jii képp ku bëggoon sunjulu si soxo su ko seeraanee day kontaan. loolu la. te suñu kontaanee sa waajur su kontaanee si yow yàlla kontaan. en tout cas daal waa axlu làmb moom instant bi ñun am nañ am nañ loo xamante ni xamuñu ko sax ndax koo xamte ni promoteur. Mm. nekk amateur. ba pare. yow bëgg nga bës <laughs> sarap naan ma dangaa bëgg bës man waruma bës. peut-être bës ñëw si man. non c'est-à-dire yow chaque jour nag da ngay créer man dama spontané. mais da ngay créer ma sentir def ko. da ngay créer ma ne man lu ma sentir de façon spontanée je le fais. pe prince munoo fexe fexe ba doo créer bës. je suis naturellement naturel. gërëm Sénégal yëpp ñaanal ñëpp yàlla defal leen jàmm. yàlla may ñëpp wér. xeebar mm-hmm. bi jeex si àdduna. Hmm? Mm-hmm. jeex si àdduna ñi nga xam ne ñoom ñoo yor nombal tànk nekk si di liggéey ku mel ni ministre de la santé c'est sûr que sonn na ah yi dañ leen di fàtte. médecins yeeg ba si kiy dawal ba si euh, bran ñu yor brancard yeeg comprendre nga docteur yeeg infirmière yeeg ñëpp yal na leen yàlla suturaal. yal na leen yàlla may xolu muñ ndax hôpital dugg fa rek temps bi nga fay def rek comprendre nga doo def lu dul yàqamti génn fa ñu fay yendu nag. di faj njët yi di leen opeere hmm? di defal gars yi oxygène fu mu nekk nii di faj ko corona ak ñu ñu siy ragalee corona. Hmm. ñooñu yàlla leen yàlla suturaal. Hmm. yàlla nañ leen gën di bàyyi xel. suñ jógee si lii ni gars yi di amee ay cité ñu yokk defal leen promotion di leen dimbale ñuy def seen formation. nañ ko ne Sénégal yëpp waroon nañ mën a ibbi comme Sénégal euh, Touba ca kanam ni mu amee waroon nañ ibbi benn kont ku si nekk jël sa cent franc sa deux cent def si ñu tasaare ko yi parce que mérité nañ ko waaw. mérité ah, de tenue yi nekk si tali bi te duñu sax protégé wu. bu baax mais du positif la man su ma sañoon bokk suñ su ma wóoroon ni ku tëju sa kër lekk. Hmm. confinement général la ñuy dem même bu dee quinze jours la. parce que mooy solution. ba pare ñu pulvériser dëkk bi pomper dëkk bi. loolu rek la ñuy ñaan yàlla def ci réew mi jàmm. kon corona daal na fi jóg rek. na fi rek na dem. lépp luñ ko bëgg rek dañ koy yombalal moom di ko ñaanal yàlla moo xam ne bëgg yàlla na ko yàlla defal ci barki Seydina Mohamed yàlla aar ko muccal ko wax dëgg yàlla ndax ku baax la di wax rek kon li muy wax rek na gars yi tàppe xol yi raxas xol yi jaamu yàlla suñu borom ndax moom moo fi am ndax nee naa leen c'est pas trop tard gars yi nañ tuub jéggalu. moo fi am ah moo fi am parce que feebar bi nekk na loo xam te ni daal kenn ku nekk après boo toogee rek di nga xam ni yàlla am na lum lay wan kon donc am na lu mu ñuy wan rek nañu profité ci occasion boobu noonu bu nekk loo xam te ni lu sincère suñun du nuyuwaay nag parce que koo xam te ni sama benn yaay boo xam te ni coronavirus bi da ko ragal ba tellement que toogatu la sax ak ñun foo gis mi ngi masque muuma noppi muy suñ mama as sumaare di ko ñaanal moom mu gudd fan ak ak ak naan ko rek ci kàttanu yàlla ndeysaan yow sa njaboot tax lekkatoo naanatoo ndax yaakaar na ni sax bu ko déggee sax ndeysaan dugg na ci njabootam mais di la ñaanal yàlla rek naan la xol bi nga am yàlla na la koy yàlla na yàlla fay yow it yàlla aar la ci barke Seydina Mohamed ak njaboot gi yëpp waaw ak ñëpp daal la ñuy wax rek di ko béggewaat bu baax a baax di béggee Bassirou Diouf l'infatigable ndax ni ma lay wax rek nee naa la su ma rek nga ne ma acca nag des questions fu ñu dem la nang acca nga ma acca di la rek yow jàmm sono la yow yàlla may la gudd fan ak wér may la soxna su baax waaw boo xam te daal moo lay toppatoo di la di la ko ñaanal daal ndax instant bi xam naa ne sonn nga <laughs> di wax gars yi rek ni lañ leen indiloon naa ah, prince lañ leen indiloon ndax yéen a ma ko laajoon ma indil leen ko mais tey prince daf maa daw ndax loo ko wax mu ne la corona bi loo ko wax rek mu ne la corona bi mais nag xam naa dinañ ko jàppaat incha allah bu corona bi jeexee ak jàmm ak salaam ami internet dinañ leen indiwoon wasaare lamb ah, Fatima Kese wasaare làmb kese dee jox gars yi di daje incha allah ba fekk jëli mbër wala promoteur wala amateur wala képp koo leen bëgg rek amateur wala képp koo leen bëgg rek amateur in abi jamono mooy tumboolo raxas loxo yi mooy li gën ndax feebar bi di korona mi ngi xeex ak àdduna moo ñu mën ndax feebar korona mi ngi xeex ak àdduna ba tey moo ñu kontaan nañ ci yow mbay si Babacar suñu limee dañuy juum